daleen ak jàmm ndogal yi police nationale jël ci càccub xale yi ak faatub gone yi nag bokk na li gën a fës ci xëtu yéenekaay yu génn tey àllarba ñaar fukki fan ak benn ci weer mars atum 2018 police nationale xam na ni mardi jël na ay matuwaay yu mat sëkk jëm ci kaaraange gi nag ngir rek dakkal këf gi ak sàccub xale yi ñu nemmeeku ay bés ngi nii fii ci réew mi nag ba tax na rek mu ne dina topp képp kuy def katu ñaaw téef daal koy teg ci loxoy yoon nag jëmee ci li ni mel nag directeur bu sécurité publique di Abdoulaye Diop doon yëkkati ci janook taskatu xibaar yi xam ne nag nguur gi teg na si loxo nag ay moyens ni ki ay oto ngir rek mën a xeex bi la situation nguur gi nag dajale ne ay moyens yu am doole nag ay moyens yu leer nañ nag teg ko ci loxo police yi nag ngir ñu taxawal fii lu ñu tuddee ak task force nag nga xamante ni jamono ji ñu ngi koy doxal rek ngir xeex këf gi ak sàcc bu xale yi fii ci réew mi nag commissaire de police divisionnaire Abdoulaye Diop moo xamle li ni mel nag moom nag nee na ñu ngi dalal xelu askan bi nag ni leen tax a jug rek mooy jeexal li ni mel nag ngir rek sénégalais yi mën a nelaw nag suñu sukkandikoo si Abdoulaye Diop nag bi àddu tamit si ñaari faatub xale yi amoon ca Touba ak ca Rufisque nag ak juróomi tentative d'enlèvement foofu ca Matam Grand Yoff ak Rufisque nekk ci diwaan bu Ndakaaru nag muy wax ci disparition yooyu vol ak enlèvement nag ñu ciy toftal faatub bakkan nag Sud Quotidien fësal si xëtam mu njëkk ne la psychose s'installe maanaam askan bi tiit nañ lool ba tax na nag état bi daa di génn ci pat pataaralam bi nag yéenekaay bi nag daa di jox kàddu directeur sécurité publique Abdoulaye Diop bi xam ne xamanti nek rek dinañ la top ba rek mën la tek loxo nguurub senegal nak genn na ci pat pataralam enquête moko fassal ci xata mu njëkk daan ne police nak limu xamle moy rek dina duggal loxom ci li ni mel nak ngir rek mën tontu askan bi nak soley yene kay lañ koy daanale bi dik si retraite enseignant supérieur yi manam ñi jangale ci njàng mu bi dah di fasal ci xata mu njëkk ne Macky Sall nak triplé na pension ba nak manam yok nako ko si retraite enseignement supérieur yi dina am ab yokkute jëm ci wéru juillet bi ñu jëmal nag li ni mel tax na ba impact budgétaire bi nag yóbbu nañ ko ci fukki milliards ak benn su suñu ay koppar texte bi nag démb la ko dugal ca séance plénière assemblée nationale yéenekaay bi moo ñu ko xamal libération daa dikk ak ñun ci filière achis daa fësal si xëta mu njëkk daa ne rek section de recherche nag daa dina teg les en papa dañ leen a jàpp ci flagranderie ginnaaw ba ñu yoree li nga xamante ni moo di achis nag ñi si mel ëttu yéenekaay yi ñu yendoo ak jàmm